asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen leen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañu koy dare ak situation kii di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng ak Olympique de Marseille gannaaw boo xamante ne gis nañu ne match yi nga xam ne Marseille ñoo ngi ko doon joué ci pré-saison yëpp benn match képp la ci daal di joué dañu ñu dinañu ñëw léegi jox leen li nga xamante ne moo xew ci match yi Bamba Dieng joué ak yi mu joué wul lan moo xew su boobaa di ngeen xam ne dëgg-dëgg ki nga xamante ne moom la ñuy wax Igor Tudor dëgg-dëgg li muy def xamu ko voilà moom sax ci la ñuy dooree moom mi nga xam ne fii mu ne nii mën nañu jox ne coow tàmbali na koy topp foofu la ci Marseille moom entraîneur Marseille boobu kii di xibaar biiral nañu nekkat fi mu ne nii li nga xamante moy vestiaire Marseille bi commencé na yëngu ndax joueurs yi daal noom deug dëgg-dëgg gisuñu seen bop ci li nga xamante mom na ki di Igor todor di liggéey te muy entraîneur Marseille bu bees bi mom mi nga xamne dafa ber bambadien Dieng ak yeneen joueur yo xamanteni jamono bi daf leen dal di carrément ci plan bi même ñi nga xamne mo ngi leen di footballoo sax kontaanuñ trop ci ni nga xamne non la leen di utiliser fi mu leen ni nenañu nañu eh, li nga xamanteni moy groupe bobu dafa yëngu ba ki nga xamanteni moy Payet Payet nak moy ki nga xamne moy capitaine Olympique de Marseille mom mu ngi sakku ngir daje ak ki nga xamanteni moy njitu eh, Olympique de Marseille ta nga xamne moy Longoria voilà fi mu leen ni ki di Dimitri Payet dafa bëgg dajé daje ak mom voilà ngir situation bu ñagas bi nga xamne jamono bi mom la Marseille di doxé ci jamono jamono yi nga xam ne saison bi sax tàmbalewul pré saison képp la ñuy defagum waaye daal li nga xam ne moom la ñu gis dalul seen xel ñu fàttali leen Marseille dafa jënd joueur yu bari diggante daaw ak ren qualifié ban ci li nga xamante ne mooy Ligue des champions bëgg a dem dafi jëloore waaye joué pré saison boo xam ne mën nañu wax ne pré sason bi yëpp benn victoire lañ ci am Marseille pré saison bi li ñu joué yëpp benn victoire képp lañ ci am yeneen match yi dañ ci am benn match nul ak ay défaite léegi ki nga xamante ni mooy Cheikh Amadou Bamba bi nga xamante ne moom la Igor Tudor mooy entraîneur bu Marseille bi daal di xam le ne moom daf ko def comme cinquième choix ci li nga xamante ne mooy wàllum attaque bi léegi xool leen fii ba xam ndax Bamba Dieng ak Igor Tudor fii kan moo fi am dëgg Bamba Dieng match yi nga xam ne Marseille joué nañu ko ci lii di pré bi yëpp yëpp bu ñuy xool dina toll ci dégg nga yaakaar naa ne cinq jàpp six match Marseille dal nañu ko joué ci li nga xamante ne mooy pré yi premier match ne Marseille joué na ko mu ngi nekkoon euh, ci li nga xamante ne mooy le 13 juillet Marseille dafa dal di woon dóor am victoire bu toll ci 4 buts à 1 maanaam ñeent bal ci benn Bamba Dieng boobu képp képp képp la dal di joué moom moo marqué woon ñetti bal ci jongante googu maanaam hat-trick la defoon léegi nag bi mu depuis ñu jógee ci ba léegi Marseille yeneen ñeent match yi mu ci joué yëpp benn match nii la ci am yi ci des yëpp dañu ko dóor Norvège City daf ko jàpp ndulli ko ba muy bëgg dee 3-0 jàpp ko dal di koy tëgg 2-0 mu match nul ak Real Betis 1 partout Olympique de Marseille AC Milan ko ni ki démb voilà kon mën nañu wax ne pré-saison wu Marseille bi ren bu ñuy xool euh, Marseille euh, yëpp ñu ngi marqué lu toll ci 5 bi pré bi yëpp 5 bi la ñu marqué tak 3 yi Bamba Dieng moo ko marqué. xool leen loolu maanaam benn match bi Bamba Dieng joué na 3 bi 4 match yi nga xam ne Marseille joué na ko gannaaw ga yëpp benn bii lañ ci marqué. léegi ñu bëgg a wax ne am na ay lu toll ci 3 jàpp 4 attaquants yu ko gën a xereñ yu nekk ci kanamam képp koo xam ne yaa ngi déglu te ànd ak sa xel di nga xam ne maanaam lii xel nangu ko. dama ne Bamba benn match bi mu joué 3 bii la marqué yeneen 4 match yi nga xam ne Marseille joué ko gannaaw ga yëpp Bamba Dieng euh, ñii di Marseille benn bii lañ ci daal di marqué benn bii yi des yëpp bu ñuy xool ay bii la yoo xam ne dañ koo encaissé marqué marché yi daa xaw nañu ko rey ci li nga xamante ne mooy pré-saison yi kon Bamba Dieng bu ñuy wax ne amul place ci équipe boobu wala ñu gis ne attaquant yu fa nekk ñoo ko gën a xarañ man loolu du ma ko nangu amul Milik amul keneen a keneen amul Bakambu amul keneen voilà Bamba Dieng marqué na 3 bi kenn ci ñoom marqué wul 3 bi ci pré-saison yi équipe bi yëpp may la 2 bii la marqué équipe bi yëpp deux bi la ñu marqué Bamba moom képp moo marqué trois bi léegi nag bu fekkee entraîneur bi dafa def choix am dal di wax de de moom eh, Bamba daf ko def comme cinquième choix ndax li nga xamante ne attaque bi dafa xat moom dafa xamul dara kii ku gis xam ne xamul dara parce que ni muy liggéey euh, ci équipe boobu ak match yi weesu ni ñuy wan Marseille ak équipe bi ñu yor diggante daaw li nga xamante ne Sampaoli def na ko ba indi équipe bi ci a difficile bu dee moom continué na voilà dèjà rek mbir mi commencé naa yëngu comme ni ngeen ko xamee kii di Dimitri Payet mu ngi sàkku daje ak xamante ki nga xamante ne mooy njiitu club bi ngir ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy situation bi foofu la ci Olympique de Marseille kon képp koo xamante ne yaakaar naa ne li ñu doon teg Bamba Dieng ci banc bi ndaxar na la tey war nga am lu la neex ndax Bamba Dieng moom képp dugal na 3 bi li des ci équipe bi yëpp 2 bi la ñu marqué Bamba Dieng benn match bi mu bi mu joué moom ci la Marseille am victoire yeneen match yi mu joué yi mu joué wul yëpp Marseille ci kenn voilà ay defet la ci jëli ak i match nul léegi nag lii mooy li nga xam ne yaakaar naa moo ñuy àtte suñu diggante kooku nga xamante ne mooy Igor Tudor boobu nga xam ne moom la ñu wax ne moo remplacé Sampaoli boobu nga xam ne dafa gedd équipe bi dem gannaaw boo xam ne daf doon sàkku ñu dal di indi ay renfort te yi mu doon sàkku indiwuñu leen moom moo dal di dem ki nga xam ne moo ko fa remplacé lépp lu mu liggéeyoon na pour yàqu ko loolu mooy li nga xamante ne moo xew situation bi noonu la demee foofu la ci xibaar yi nañu ne am nañu déggoo seen diggante kii di Alex Sanchez bi nga xam ne moom joueur Inter de Milan te xëyti xibaar bi biral nañu ne moom fi mu ne nii moom chilien bi dina ñëw ngir signé ñaari ati contrat waaye nag dina fayeku loo toll ci 3 millions d'euros at bu jot loolu mooy li nga xam ne moom la déggoo club bi dina ñëw dara officiel agul nag waaye nee ñu déggoo am na ci digganteem ak club bi dina ñëw signé ñaari ati contrat moom kii di Alex Sanchez Barcelone moom kayiti xibaar dañoo biral ne kat euh, ki nga xamante ne mooy Miralim Pjanic Miralim Pjanic dina am ndaje digganteem ak ki nga xamante ni mooy Xavi Hernandez di coach bu FC Barcelone su ko defee ñu dal di waxtaanee li nga xamante ni mooy ëllëgëm ci équipe boobu ndax day dem wala day toog te nee nañu moom kii di Miralim Pjanic amaan na sax mën na am sax Xavi dal di koy téye ci équipe boobu ndax nee nañu li nga xamante ni kat moom la dal di wane ci li nga xamante ni mooy digganteem ak Xavi donte ne utiliser wul ko dañ koo ber moom wanewul genn ñàkk yar wala loo xamante ni rek war nañ ko ko mën a sikkee moom toujours dafa nekk koo xam ne daal moom dafa concentré wu ci li muy def ànd ak yar teggin gu mat sëkk loolu nee euh, loolu war na ba amaan na mu am chance bu fekkente ne dajee naag Xavi amaan na ñu war a mën ba war a mën a toog ci club boobu amaan na Xavi sax jox ko chance ngir mu jouer ci match yi nga xamante ne mooy ñëw loolu yëpp nag dinañ ci xam dara gannaaw bi mu amee ndaje ak ki nga xamante ne mooy Xavi Hernandez ci bés yi di ñëw voilà loolu après ci la ñuy ndax li nga xamante mooy yar teggin gi nga xam ne dal dina koy wane ci club boobule ki ni moom lañ wax Martin Braithwaite ba tey foofu la ca Barcelone moom nag daal dinay dégg nga am jege lool ngir déggoo ak Barcelone ci wàllam maanaam dagg li nga xamante ne mooy seen ab ànd maanaam taaxale ko ci jàmm waaye nag ñaari club a ngi nii taxaw yoo xam ne bëgg nañu ko signé Getafe ak Celta de Vigo ñaari club yi jamono bi ñoo ko tàllal loxo ngir daal di koy signé moom ki nga xamante ne mooy Martin Braithwaite ki nga xamante ne mooy Bernardo Silva ki nga xamante ne mooy Laporta dal dinay ñëw ci euh, mbiram bi ñu ko laajee nag lu jëm ci kii di Bernardo Silva ndax ñoom dañuy dem signé ci kii di Bernardo Silva am déet moom nag li mu dal di tontu moom kii di Juan Laporta ñu concentré wu mooy naka la ñuy def ba inscrire seen joueurs yu bees yi maanaam joueurs yi nga xam ne signé nañu ne ba noppi nu ñuy def ba inscrire leen mu ne fi ne nii loolu mooy seen liggéey bi gën a mag boo xam ne ci la ñu jublu suñu jógee ci loolu ba pare dinañu jublu tam régler ci situation joueur yi nga xam ne bokkuñu ci plan bi plan saison bi waaye dañ war a dem mu ne ñaari yi nga xam ne mooy seen liggéey mooy ñaari yooyu de maanaam euh, inscrire fexe ba inscrire joueur yu bees yi waaye fexe tam ba ñi nga xam ne war nañoo dem ñu dem loolu mooy li nga xam ne mooy seen liggéey bi gën a mag nee na nag euh, su boobaa su loolu passé dinañu xool ba xam ana lan mooy xew ndax Xavi nag ba tey ji moom soxla li nga xamante ne mooy ay kon nag su bu ñu liggéentee situation bi ba noppi ci la ñuy soog a xam ndax Bernardo Silva wala keneen ak keneen war na ñëw am déet Manchester United seen latéral gauche bi nga xamante ne moom la ñuy wax Alex Telles moom nag kayiti xibaar yi biral nañu ne fii mu ne nii jàpp nañu ne war na mën a dem loon maanaam dañu koy appelé ci beneen club voilà FC Séville nag ca Espagne bokk na ci club yi nga xam ne intéressé wu nañ moom te jàpp nañu ne moo des ci digganteem ak Man United mooy maanaam Manchester lan lay couvrir ci li nga xamante ne mooy salaire am ndax kat moom salaire xëy na xaw na diis ba club bañ koy abal xëy na duñu pare ngir fay lépp moo tax Man United faw mu am pàcc goo xam ne dana ko fay ci salaire bi club bañ ko able dal di fay la ca des loolu mooy li nga xam ne ci la ñuy waxtaan loolu yëpp sottee kii di Alex Telles ne nañu dina dem loon maanaam dañu koy able ba saison bii daal di jeex bu dee Chelsea football club jamono bi seen attaquant bi di kii di euh, dégg nga Michy Batshuayi Michy Batshuayi fi mu ne nii mu ngi waxtaan ak Everton te benn at a des ci contrat mag diggante mag Chelsea nee nañu fi ne nii waxtaan bi sori na diggante mag Everton ngir ñu daal di koy signé jëlee ko Chelsea football club. ki nga xamante ni nag moom la ñu wax Cucurella bi nga xam ne Man City yàgg nañu ko topp te déggoo tëw am digganteem ak Brighton Chelsea football club dugg na ci mbir mi te amaan na sax mu jot ci ndax Chelsea fi mu ne nii bëgg nañu si signé ki nga xamante ne mooy mooy Cucurella bi nekk foofu la ci Brighton. Manchester City nag waxoon nañ ay fan ci ginnaaw ne ñoom amaana dinañu bàyyi li nga xamante ni mooy mbirum Cucurella jublu ci keneen ndax ñii di Brighton bëgguñu leen ko jaay waaye Chelsea moom gisul loolu yëpp pare naa dugg ci mbir moomule ñu xool ba xam ndax dina ci am ndam am déet voilà gars yi loolu fi resendi woon ci tëggoom xibaar continuer leen di suivre seen sport the best sport news channel